waaw mais balaa ñuy jàll dama lay laaj encore su fekkee ne am na loo xam ne waroon naa la ko laaj wala am na loo xam ne war euh, bëgg nga bëggoon nga ko wax ci kii di Zal wala Wally wala El si ñoom te waxuma la ko mu ñëw ci sa muy lan. waaw ñun xam ne tey jii lamb yooyu bokk a marqué nomination la woon. waaw. lamb nomination mu ngi amoon Joal collège de la Petite Côte. Mm-hmm. at boobu noonu poids léger yi gars yi gars yi ñoo jël kii bu ne secteur bu ne les meilleurs poids légers. waaw les meilleurs poids légers si benn secteur sax boo xam ne ay poids légers lañ waaye gars yi dañu bëri ndaxte at boobu je me rappelle très bien Joal gars yi jëloon nañ fa quatre quatre waaye gars yi xamoon nañ quatre mbër yi ñu ñu jël yëpp dañu bëri jusu dañu bëri. ok dañuy bëri seen biir quoi. donc bëri seen biir. mais mhm. après mais après bi ñu génnee après bi ñu génnee ci jël biiru ko bu rafet bu biiru biiru ak ki biiru lañu jël ak ay dara. ak Cheikh Ousmane. waaw. waaw. Mhm. muy huit. waaw. waaw. biiru kan biiru Cheikh Ousmane Aïdara ak kan. ak Sall. waaw. ak Coos ak Baba Ndew. Mhm. waaw ñooñu la gaa jëloon ci poids léger yi. lamb lamb bu neexoon lamb bu bëri woon coow. waaw. waaw Abdou Aïdara Aïdara jour boobu la njëkk a a après ñun koy dégg. Aïdara Ndong ñoo ngi dégg Aïdara Ndong. Aïdara Fayaako. Aïdara Fayaako biir mbir mi. nit ñi ak mu mbër bu jiital pied droit Aïdara Ndong moo la man. cum. bépp mbër bu jàpp bu bu jiital pied mhm. day jàpp day jàpp sa masa. jour jour boobu bind maa ngi fàttaliku jour boobu dama xëy ma dem toogi ma dem toog atelier Serigne Lam sama doomu ndey sama xarit kooku. Serigne Lam maa ngi koy nuyu de passage. Mhm. boobu atel boobu atelier moo ngi nekk foofu nanoor si pami kaas waaw léegi man bi ma toogee noonu jàkkaarloo jàkkaarloo tali bi damaa jékki-jékki rek ba benn oto ba benn oto taxaw sama kanam. waaw. gis ay ay saako mbër. waaw. xam nga léegi léegi léegi sa waay la nekk ay dara la. Mhm. léegi benn booy léegi benn booy moo ko moo ko gàttañu ji benn booy benn booy daaru salaam foofu. waaw si doxalum. booy bi booy bi wàcce rek ñu bi dafa wàcce rek suñu bëtt daje rek mu ne ma tey naa la mu ne ma tey ñu rey bataille psychologique ànd si Kambay bataille psychologique ci Kambay. waaw. ma ne baax na léegi ci laa jékki-jékki rek composé sama téléphone ne sama dugg si la de mu ne ma kan ma ay dara mu ne ma baax na. ñooñu mhm. laa mujj ndeex laa mujj neex laa mujj bëri mbër. Mhm. loolu war a loolu loolu war a jël si waat ci làmb. billahi. làmb nomination nga jël les meilleurs de chaque catégorie nga teg nga tegal leen xaalis gars ñoo bëri si. billahi te je me rappelle très bien moment boobu noonu. waaw. gars yi deux cent mille lañ leen tegaloon deux cent mille. deux cent mille deux cent mille deux cent mille franc lañ leen tegal. Mhm. ak ak ak xool la kii yi la limal. Mhm. li ak ak ak loo xam ne est ce que joxuñu boo juumul foog naa vingt cinq mille ok. mais 25000 lañ leen jox lu ñu waajee. mais boobu 200000 xaalis la quoi tane woon na. xaalis la. 24 da nga am cent et quelques mille. za za za za za jël làmb jooju ci ay dara. ci ay dara. làmb ju neexoon waa làmb ju làmb ju neexoon na trop. ndeysaan. ak dix nag ak ak ak dix nag yi ñu doon jël benn sangoon si si caaboo si caaboo bu bu bu bu nangaan. dix dix nag yi mu doon jël. Bayal Sangoné fan si kaw léegi nii lamb Bayal Sangoné foofu noonu te sax di jël ci. ci xar ne. Mhm. waaw lamb yooyu neex ma trop. ni mu demee woon. lamb trente trente et un décembre la xam nga day day day day neex. waaw. waaw gars yi tëgg lamb ji lamb ju neexoon lamb ju bëriwul mbër. Mhm. yi ndaxar ne ndaxar ne ëppee na saan noo xam ne tey jii mënoo ko mënoo mënoo mënoo mënoo sa imaginer. waaw muy. lamb ji nit moo ko ëpp yoo xam na naxaree bu baax. mbaax waaw mbaax loolu ko amul nii ci mbaax ne waaw waaw. léegi ñu bëri ñu ñu final ñoom ñaar. waaw. mais après saa yoo xamoon amoon na gëm-gëm ne day daan ndaxar. ndaxar ne. waaw. baak ne. baak ne baak ne ca waaw. mu jàpp tànk bi gisaar ko waaw lamb lamb ji ñoo ko kon bi lamb ji bëri woon Mhm. Ah. boobu tamit def la marqué quoi. marqué na ma trop ndeysaan xam na balaa muy gudd foo ñu ñëw nag ci ay anecdote monsieur Dat parce que boo waxee ñoom gay naa ko ndeysaan sa doom day ñoom gay naa ko ñoom ngaala ah ñun lay tooñee monsieur anecdote yi ah l'encyclopédie lu lambaloog loolu nag dañoo bëgg nga woon ñi ci tuuti nga jox ñu ay anecdote quoi parce que yow dañuy wax ay anecdote rek. ci ancienne gloire bu ñi nga xamné sax peut-être ñu ngi bëre ñaari anecdote wala 3 4 anecdote yo xamné tay nit suko ko déglo day wax né wa ki nu mu def bu japp li Wow. Mhm. Wow. champion yaa ngi jóg liggéey bu leen seetaan ñoom Simon Béthio. waaw. ñoom yaa Mouhamed Sarr. ñoom mhm. Famara Ferran nga seetaan leen. waaw. ñoom Issa Yara nga wàcc si seetaan ñoom Mbot seetaan ñoom dem si yàlla Seexu Jéen. waaw. seetaan ñoom Paul Ndiaye. waaw. nga wàcc seetaan ñoom Paul yi ah. Paul yi di wàcc di glissé di glissé ba nouvelle génération bi nii. waaw. xam nga mën nañu wax ne seetaan nga tuuti si laam. ah. nga ne. ma ne tey jii xam nga tey jii tey jii ko par exemple ma la ne ma la tey jii seetaan naa làmb fii seetaan naa final làmb siin siin Yamou Rofagne ak Malick Fadiouth. ñoom Yamou Yamou Rofagne men Yamou Sarr. Yamou Sarr. waaw. waaw collège de la Petite Côte. waaw. yaamu ya ya yaamu yaamu di ko yaamu di ko daal sida. ok. ah. xam nga tey jii xam nga tey ma la ne seetaan naa final final final final Valdo final final Valdo Cheikhou Dieng. Valdo ban Djibi Bazoum. ah Valdo Valdo Etienne Valdo bu Palmarin. ok. ah. waaw. dossier bu jël. loolu mooy convention. ngut ay pour tuuli. waaw. ngot bu waaw ay ngot tuuli. Mhm. ah ay pa ay ay ay ay papier ay convention. papier général. buuru buuru caare buuru caare bu baasu. ah. waaw. exemple bu faa ju Seeku Baaba exemple bu faa ju waaw. ah. Mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey jii bu ko doon lim tey jii duñ ko jël. Mm-hmm. waaw. ok mais tey comme ban anecdote nga ñu mën a jox quoi surtout euh, ci ñoom ay boo ñëwee ci génération ñoom Mamadi Ndiaye ay ñoom Mbalka Maak ay ñoom Seeku Diouf ah ay ñoom l'an 2000 ah ay ñoom Jaga Sarr ay ñoom Cheikh Ousmane ay ñoom Reug Reug. comme génération boobu quoi 2010 bi ñëw 2014. foofu foofu la si jox nii bu bi mu tegoon ko jëloon. Maama Ndiaye moo ko jël vingt nag ci kaw boobu li Maama Ndiaye moom Mhm. moo ko jël. waaw. 2007 juróom moom it mu dugg see dafa jël buubu takk ko si nag dafa jël tànk dafa jël buubu takk ko si tànk bi du ko diri. cum. sëñ Ndiaye. ñoom naa ñoom naa de ci ñoom naa de ci yaatal jël bi le grand champion. masa. mu dem ba génn géew bi complètement gis nga baara gis nga giri giri giri daal di teg noonu giri pour pour kii pour sécurité. waaw fa la teg cumukaayam. cum. laa mujjee si Seeku Diouf 2007. Seeku Diouf Seeku Ama Diouf. Seeku Ama Diouf L200 waaw. waaw 2007. may may may kii dajewaatuñ dajewaatuñ dajewaatuñ dajewaatuñ ba décembre 2019 ñu doon dajewaat Mar Fafam. décembre 2019 2007 ba décembre 2019. waaw. ñu soog a dajewaat. ñu soog a dajewaat. Seeku am ndam ci kawam di jël làmb yi si Famara Ba bu si man. en deux mille dix neuf. deux mille dix neuf maanaam revanche bi toog nañ douze ans ko doog a bëriwaat douze ans. kon Mamady Ndiaye ak Sékou Xama a bëriwaat kon ñaari yoon lañ leen kay après nga woo leen téléphone. ok. waaw. koy jàpp mu marqué ñu. ok. sama gars des ñu may tooñ naan ma da bind affaire yi nekk bu fekkee woon bindu day am day am benn événement boo xam ne jël rek taf ko sama bopp. ok ndax lamb yooyu lamb 2007 lamb 2007 boobu noonu fekk bokk na si lamb yi ma njëkk a seetaan Dakar. waaw force force dana marqué surtout ak Mamady Ndiaye geste yi mu defoon foofu di takk buum yi. merci di takk buum yi. Mhm. waaw. ok xam nga da lay marqué les après yooyu da ngay toog da ngay bàyyi xel ni day waatu day waatu day waatu day ba ay fukki at ak ñaar si kanam ñuy door a dajewaat douze ans ñuy door a dajewaat man ko kon à Mamadou Ndiaye ak Sekou Diouf encore anecdote nga ñu may 27 novembre 2021. le 27 novembre 2021 li xewoon pas si diggante Doudou Sané ak ak ak Ngagne Sène xam nga loolu dafa nekk loo xam ne tey jii da da da lay travail ndaxte le lendemain boo seetee groupe WhatsApp bi ñoom ñoo koy waxtaanee. kon ni mooy combat Doudou Sané ak Ngagne ba mo ah le 27 novembre après loolu da lay marqué Doudou Sané Doudou Doudou Sané ñàkkee foofu quart de finale ñàkkee foofu demi finale ordinateur daan ko demi daan lu leer lu leer. le 28 le lendemain le lendemain cinq millions de chômage boobu le 28 bi le 28 novembre bi. waaw. Sané Sané Sané Sané Sané Sané dem continué fa dem jël ko Simon ñoo joor. mooy cinq millions ya. wargal lu leer ngay teg nii ci la Doudou Sané daanee carrière bu bawul demi final su ma jumul. Cheikh Tidiane. incident bi moog Cheikh Tidiane xam nga loolu tamit loolu day nekk loo xam ne day day des ah mais du ci ñëpp de parce que ñun ñii sax xamoon nañ ne amoon nañ incident mais mënatuñoo jàpp sax ban mois la woon wala ban date la woon. <laughs> léegi laa mujj laa xam nga moo tax mu gën moo si final moo tax suñu boy moo si final. hélas. ak Boy Faye. ak Boy Faye merci. ok. te li si te te si gën a garaaw dafa xam ne léegi Boy Faye jour boobu dafa bëri adressé Senghor ñàkk continué Mbour. jour boobu Boy Faye dafa dégg adressé daw si Mbour. waaw déggoo ma jour boobu Boy Faye sa waay ko génne foofu premier tour kii kii Simon Mojor. ok. wàllu ginaar jël ko. dëggantaan. waaw un an après Ganchen Ganchen ak Ibou Ndiaye finalu teenay gaal Ibou Ndiaye daanu ko est-ce may dégg un an après juste même date déggoo li ma la vingt sept novembre deux mille vingt et un vingt sept novembre deux mille vingt deux bi Ganchen di doon ordinateur demi-finale waaw ok xanaa moom mooy bi bi ko Ibou Ndiaye bëri di berek. waaw ba mu bëri bi mu koy botti ngay wax. waaw mbott waaw waaw comme mbotti waaw. kon ni monsieur Dot. loolu de loolu xam ne tey jii xam ne da koy téye nii psychologiquement. psychologiquement. dégg. léegi imagine am na osu maa ngi doon commenté sa sa site bi ma ne la ma ne la ma ne la ma ne la kii ma ne la ma ne la ma ne la borosel ba ak ak sa waay dañoo daje dañoo daje dañoo daje dañoo daje mu ne. ak ganja. ma ne pour ak ganja faama dañoo daje mu ne le 31 décembre 31 décembre 2022. waaw. ganja daan ganja ganja daan ko un an après juste un an après 31 décembre 2023. yaayam. ñu daje yaayam. Mhm. boros el baa di fayu. attanuma lii waay loolu yaa ko mën jàpp de. tey surtout si làmb ñun ñoo xam tey am nattu làmb. non loolu kay ko ku am nattu lamb dëgg moo ko mun ku am nattu làmb dëgg dëgg dëgg dëgg ndax ñun ñi nga xam ne ñun itiviti bi sax am na yoo xam ne saa yi des duñ ko sóoraale ay 31 lii ma waxee woon 31 bii déwén nii en tout cas dañ ñun daal mën nañoo jàpp ne làmb ji amoon kii moo ko jëloon wala ñu ñëw final yoon ren gii ñu ñu ñëw final mais jàpp les événements là non. arène nationale. ah. arène nationale arène nationale. waaw. ba nga tey jii loolu ba tey jii loolu dafa nekk loo xam ne tey jii da nga koy jàpp. waaw. ah. lu leer. léegi loolu c'était c'était une première c'était une première du soir bi kii tournoi bi seen yooyu noonu. ñu organiser ko. waaw. ah. waaw. mois de saison bi du waaye te le treize août deux mille vingt deux waaw anecdote ak ban anecdote par exemple si ñoom ay ñoom ordinateur ñoom Doudou Sané ay ñoom ñeneen consort la yeneen poids lourds yi bëri consort la ñoom ngañ Sénégal day ji nit ñi day ji mënoo développé si lu simple da tuddoo rek champion bi Omar Khan. Omar Khan, wow. waaw ndaanaan la nit di kooku ndaanaan la. ndaanaan ku li fajri kooku kenn loolu biram kenn laam laa ko. nee ko ne mu xëy mu xëy dem jël ko. kon kooku kooku gaynde la. ndaanaan la de. vrai ndaanaan la. dëgg la. lépp waxee. ordi ordi ordi yàlla suñu champion la. ordinateur dafa yàgg a jël làmb ñu di jël làmb. dafa yàgg jël làmb. dafa yàgg a jël làmb nii nii. waaw. ah ima ima ima imagine imagine vingt cinq nag yu gàncax yi ci deux mille quinze foofu ñaata poids ñoo ko wàccoon ñëpp presque. ñëpp kay. ah. ma ne presque ñëpp ñëwoon na est ce que yaakaar naa ñoom Reug Reug ñoom Ablaye Ndiaye foofu lañ nekkoon de. ñëpp ñoom Reug Reug ñoom Ablaye ñëpp ñoo ko. Reug Reug daa mel ni Aliou Sali moo ko daanoon. Aliou Sali ko daan premier tour. waaw. ay mbalka ma ñëpp ñoom fa. mbalka ay biisale ca. caaka fay fa. mbalka daa mel ay kii ay Nikon ay Mbisaan ay Gaan. Mm-hmm. daa mujj daa mujj diis diisoon bëri woon poids lourd or jël ko. o oh, yàlla si nit. xoolal xoolal trente tonnes yi xoolal xoolal trente tonnes ciment yi ñu tegoon Joal tam. waaw yi muy jël ci kaw bukki. yi muy jël si bukki nangam. daa mm-hmm. mujj neexoon bëri neexul di. Diofior nag. Hmm. non ndaanaan la kooku kooku Oya la Afrique kooku kenn kenn waxtul ay mbiram. ndaanaan mais amoo ay anecdote diggante moog Doudou Sané comme que lu ñu daje dañoo bëri. kan la or or rek waaw. dañoo nekk ñaari moom. dañoo mais saison bi nga xam ne tey marqué na marqué na pour amateur mooy saison 2021 2022. 2021 2022. 2021 2022 ñu dajee sept fois. sept fois. sept fois sept fois lañ ci daje sept fois. waaw ta sa bo sa bo moom bëri bëri bëri nañ lu bëri. ay Fatick Diouroup. si bu ma juumee bu ma juumee sept fois. ay Fatick Diouroup Diofior Ndangaan. parce parce que ñu ko daje. waaw ordi daan ko. waaw. waaw ñu ñëw jof yor. ñu daan ko. waaw. léegi premier janvier deux premier janvier deux premier janvier deux mille premier janvier waaw. xanaa mooy bu Fatick bi ak Diouroup bi. ñu dañuy Fatick dañuy Diouroup. seetaan sa morom. waaw. loolu du daan ko. waaw. mooy mooy bu yàgg ba bu metti ba. seen seen final bu metti lan laa demee groupe WhatsApp yëpp di ko waaw na ku xam dëkk di ko waxtaanee. waaw lépp loolu dafa nekk loolu day des sa day waaw loo xam ne tey doo gaaw fàtt waaw waaw dëggantaan ba tey ji boo déggee làmb ñaling rek boo dégg boo déggee làmb ñaling rek sa sa sa xel day ne yar ci final boobu dëgg dëgg ndeysaan xam naa ne anecdote yi nag dañ koy yëbaleegum fii parce que xam naa sax batterie baa ngi commencé kii mais foog ñu def foog ñu def deuxième partie parce que anecdote yi jeexuñu ñoom gay naa ko ñoom ngaalaa am na yi may wax ci yow loolu foog ñu développé ko Lambalog la. Lambalog la ñoom damay sawar di waxtaan ak ñoom. moom Omar Ngalla ko li Fap Diabel. <laughs> Omar Ngalla non Omar Ngalla kooku Omar Ngalla kooku kooku kii la kooku amateuru la <laughs> mbaa du. Omar Ngalla Omar Ngalla amateuru démb la. ndeysaan kon. Baye Fall la. Baye Fall la. kon te kon tey bu amoon looy tàggatoo tey lan ngay tàggatoo. waaw nit moo de la fay di sant ñëpp di gërëm mhm. leen ñaanal jàmm di di ko sant ci yéen. Mhm. lépp luñ fi wax lépp luñ fi wax bu jubee ñu xam ne yàlla la buñ juumee tam ñu xam ne suñu ñàkk a motali la. dëggantaan. si. amiin amiin yaa ku si mel ni ku si mel ni Ousseynou Kane sama xarit sama doomu ndey. yal na ko yàlla yàlla. Denis Diatta. Mhm. Ibrahima Ndong ñooñu ay nit ñooñu ñoom dañoo sori woon si man. ndeysaan. te dañoo génn àdduna sama mhm. ku si mel ni Abdou Faye kooku ñoo doon si ci làmb maa ngi koy cité sax bi ñuy commencé. ndeysaan. mu sori mu sori mu sori mu sori woon baax a baax a baax a baax Sa moom may dégg. ndeysaan. ñoo koy ñaanal ñoo ngi koy jaale famille ñoom yëpp. dëggantaan. suñu papa Badou Ndiaye ñoo ngi koy jaale ñoo ngi koy jaale famille Ndiaye famille Ndiaye ñëpp. ndeysaan amiin waay. waaw ñooñu ñëpp sama ginnaaw lañ génne àdduna. yal na koo xam ne tam suñu papa suñu nijaay suñu lépp suñu grand. Mhm. Maodo Sakho Maodo Sakho. kër Socé yëpp ak suñu grand Mansour. Mhm. ndeysaan. waaw ak waa kër Socé yëpp ñoo ngi koy jaare. dëggantaan. waaw. kon ñu lay wax ne. ak ak ñoo xam ne tey ñu jaajëfal a ne tey jii dañu jàppale si làmb si côté Zambia dañu doon jàppale si làmb bu baax a baax a baax. waaw. Pape Boucar Diouf Pape Boucar Diouf ak waa waaw. dañu doon jàppale. doon jàppale Zal bu baax Baboucar ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax. Mhm. waaw suñ benn garaatam bu dëkk Mbour Pape Ndiaye Pape Ndiaye Mbour ak Momadou Ndaw ak Moussa Ndaw. waaw dañu doon jàppale bu baax. Mhm. ñoom tey jii ñoom tey jii waxtaan ci naam tudd champion te ñoom tey jii sant leen gërëm amin yaa rabbi amin yàlla yàlla mën na ko te na ko def amin yaa rabbi Aïcha kon sama gars yi yéen a ko gisandoo yéen a ko déggandoo on lambaloog nee naa leen tey mooy première édition ñuy dégmal ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew beneen fois euh, beneen yoon rek di ngeen gis ñu indi leen beneen lambaloog wala beneen champion mun na doon mbër mun na doon amateur yoo xam ne mun nañoo xetali nit yi ci waxtaanu làmb kii mooy Ngóor si Oyane Joal Fadiouth kon tout droit ndax nam ndax nam te bokki na àndaa jërëjëf